contrat la ma signé amul amul ku la ko fiy defal monsieur le ministre nga baal ma nag ci jokkoo beeg wax bi mais dafa métti yéen a ngi wax sànq ba léegi ay journaliste ñun ay technicien lañu joxuñu ñu gëdd bi alors que ñun ñooy dox ñooy def ñooy def lépp mais ñoom ñii di la wax nii ay ANPEL ak ANPEL sec ñoom ñëpp. non non

comprendre di gérer seen i affaire la presse en ligne bu ndaw bi nga xamante ne ñooy doogu juddu ñoom duñu leen encadré seen bopp lañ fi nekkal les jeunes entrepreneurs yor ñëw ubbi seen ci bëgg a am dara defuñu ko ñoom ñu leen di bund xataa di leen félicité wallahi monsieur le looloo am ci presse en ligne sama xol la moo fees.